moo tax mu ne ay naasu xallul hazla waqfu muhammadan ngeen la yéen nit ñi bàyyi leen font te ngeen topp muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa illaa bu ngeen defu loolu taraw ni dahra jëdd bara yi da ngeen ma gis man ma dëñ ci yéen dëñ gu mat sëkk benn ngeen topp bàyyi seen caaxaan yi topp yoon bi sallallahu wa sallam wala ngeen xam ne man li ngeen nekk jotewumaak loolu dara te loolu wax na ko ñi gën a jege mooy ay taalibeem la bind leetar ne yuusiku an arfaa al idna an kulli muqaddamin yuxtaxamu bi xadratihi muharramaatu wa lam yaqum bi ma wajaba alayhi maa ngi waajal nangu suma ndigal sax ci bépp muqaddam boo xam ne nii dañuy moy yàlla ci kanamam rek te jugut def ci lu ko war kooku maa ngi waaja nangu suma ndigal ci moom te maa ngi da danaa ci moom te loolu la wax ci mu ak leetar bi te man duma ma denc kenn lu may boo xamee ne yàlla ak ab yonentam dañoo denc moom